salaamaaleykum wa rahmatulah nuyu naa leen ziar naa leen mbokk yi tey dama bëggoon attirer suñu attention attirer attention euh, ñi may suivre ak ñi nga xam ne tamit dañuy ñëw euh, jël séance coaching euh, exposer seen problème bëgg solution wala des fois sax ñu bëgg ku leen déglu rek wala des fois ñu bëgg just lamenté wu <laughs> wala des fois ñu bëgg juste victimisé wu loolu yëpp suñu roox moo ni mel maanaam doomu aadama des fois dinay jànkonteel ay situation ci àddina am day am ay posture yu muy adopté nit ki mën na adopté posture victime comme mën na adopté posture di lamenté wu comme mën na adopté posture euh, dama bëgg juste ma vider ba tax na <laughs> léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy ñëw euh, coach je dama bëgg juste raconter la sama histoire des fois damay laaj nit ki pour quel objectif en fait parce que quand tu es conscient lépp lu nit di def wala lépp looy jëflanteeg nit da nga koy laaj lan mooy objectif bi derrière si ça ne t'intéresse nga avancé si ngeen waxtaan si. léegi en général boo nee nit ki lan mooy objectif nga raconté ma sama histoire sa histoire di moins nit ki mën na ne ah je veux juste me vider te ni man damay liggéey en fait <laughs> damay liggéey. donc jàppale nit ñi euh, li may def jaamu yàlla la bu rëy macha allah et je ma mën ak lu ma mënul pour fexe samay tarif di rentrer dans la normalité mais da gis ni nit ñi des fois ndeysaan dañu amay problème mais bëgguñu débourser benn un euro wala un franc pour régler ko parce que pour ñoom conseil warul jaay waaw conseil <laughs> bu te ni conseil warul jaay kon euh, président yi chef de l'État yi entreprise yi duñu soxla ay conseillers duñu soxla ñu leen di coacher parce que métier la dañuy dañuy liggéey mais ñun amuñu culture boobu parce que pour ñun ñu <laughs> dëkk lañu boo xam ne ñoo fi dàq joxe conseil ñëpp a joxe conseil en fait donc suñu réew conseil boo laajee boo laajul ñu conseiller la ñëpp ay conseiller lañu ñëpp ay coach lañu bi coaching xewee nag moom daal mel ni gars yi dañu jël euh, décision rek ku jóg teg sa bopp ci télé bi ne coach nga réseaux sociaux yi parce que xamuñu ni mbir mi métier la xam-xam la. te gis nga métier soo ci nager te amoo si benn notion soo moytul da ngay réer si biir parce que tey ku jaar suñuy formation ba pare di nga xam ne coaching liggéey la <laughs> métier la xam-xam la. la preuve en nekk que da ngay gis ne euh, macha allah suñuy formation dañuy euh, former ay femmes yoo xamante ni ay cadres lañu ay intellectuels lañu ñi ay médecins ñi ay enseignants ñi ay professeurs université tout donc dañuy xam ni mbir mi du foraan du fortaatu. waaw ah, parce que xam-xam la léegi nag léegi nag ma ñëwaat ci sama sujet mooy en général <clears throat> nit ñii di ñëw ci ko coach muy góor wala muy jigéen mais la majeure partie xam ngeen ni jigéen ñi ñoom ay seet si bien sûr parce que jigéen ñi ñoom dañu gëm ni amuñu benn capacité rek régler seen dund wala boog amuñu euh, benn xëy na maanaam amuñu mën-mën daal pour cadrer seen dund en général jigéen bu nekkee ci sëy di sëy rek posture victime lay adopté du jéem a xalaat ni sëy bii. moom am na ci responsable. maanaam jigéen ñu bëri dañ leen a gëmloo par seen genre féminine et tout que ni booy sëy daal victime rek nga da ngay subir ba tax na tey ñu ci bëri ci ñoom bu ñu demee bay jànkonteel situation yu difficile yu metti da ngay gis ni dañuy taxaw coach maa ngi dund lii dund lii dund lii sama jëkkër lii sama goro lii sama njëkkal lii société bi lii mais yow doo xalaat mais man yan acte laa mën a teg pour lii may dund ni mu changer. wala mu dañ xamal ni tànk yaa ngi dundee ni nga doon dundee yaa ngi jëf li nga daan jëf yaa ngi jukkawoo ni nga doon jukkawoo doo jóg ci di produit résultat yi nga daan am rek mënoo di ji ñebbe bëgg a saxal ay mango mënul nekk boo jiyee ñebbe ñebbe ngay saxal gis nga li neex ci sama formation yi mooy soo ñëwee dañ lay wan ni tu as les capacités d'agir en conséquence ci situation yi ngay dund récolter d'autres résultat yu utee ya nga doon am te da ngay gis nii preuve bi rak tak nga jàkkaarloog moom mu nekk loo xam ne sa jëm bopp daf lay yéem et aussi simple mais ñàkk outil baaxul si donc des fois jigéen dina nekk ci situation sëy moom ci boppam mu am conflit interne wala góor nekk ci sëy am conflit interne ak monde intérieur am moom ci boppam moo am problème xam nga sëy euh, balaa ñuy boole ñaari nit ay individu lañu ñaari individu yooyu ku nekk si yow da nga am vécu am passé am dund même boo duggee sëy bi da nga continuer am sa vie individuelle léegi nag ñun sénégalais xamuñu distinguer entre couple ak vie individuelle looloo waral tey suñuy problème day naqaree régler parce que jigéen ñu bari bu ñu duggee ci seen couple ñu am vie individuelle mais vie de couple bi kese la ñuy jox euh, euh, importance looloo tax seen problème di naqaree régler parce que bi nga duggee ci couple bi danga am vie individuelle am vie de couple moo tax ñu ne dans le couple yàlla a yàlla toi yàlla a man yow ñun soo dul dundal la toi mooy boo dul dundal man bi man nan laay dundalee sama man def ay mbir yu may épanouir def ay mbir pour sama bopp continuer li ma daan neex démb te dara nekku ci yàqul dara ci couple bi ma continuer di dund dund boobu mooy su ma amee envie me faire du plaisir je me le te loolu waroon nangu kenn di ko xëccoog yow waroon nangu sa jëkkër di ci imposer waroon nangu tey soo buggee jàngi soo bëggee sport boo bëggee def de choses yu lay jox épanouissement sa jëkkër daf si war a d'accord te loolu depuis le bi nga koy waxtaanee soo duggee ci couple bu ci jéemee di ci jéem a am lu mu ciy tekk nga imposer ko discret imposer say loi d'une manière très discret et très sage nga xam ne doo xeex doo xuloo doo xëccoo te li ngay régler danga koy régler parce que gis nga soo soo bàyyee. gis nga soo bàyyee ba sa jëkkër imposer la ay loi wala mu imposer la ay règles wala nga bàyyi la la daan neex démb nga commencé na di sombre si naqar. nga commencé nag di dundu situation boo xamante ni neexu la nga commencé di accepté des choses yoo xam ne neexu la lépp au nom di mariage lépp ndax damay sëy yow amatoo vie individuelle amatoo vie boo xam ni daf lay jox épanouissement yaa ngi def tout pour am pour plaire keneen même li ngay def su la neexul na neex sa borom kër na neex goro yi na neex njëkk yi mais et toi dans tout ça looloo tax ngay am malheur looloo tax soo paree tu rejettes tout faute bi nga rejeté ko sa jëkkër wala sa goro wala sa. te fekk ne à la base ñoom duñu problème bi yow yaay problème bi parce que yow yaa jël sa dund décidé ndax kenn forcé la kenn tegu la pistolet ci bopp yaa jël sa dund décidé bégal des personnes au détriment ci sa bonheur ak sa paix intérieure moo tax bëri na jigéen ñoo xam ne seen couple amul yenn problème yi de amul yenn danger yu majeurs yi parce que man couple bi may wax problème majeur mooy couple bi ànd ak ay violence psychologique économique physique mais dans le cas contraire ce couple am problème conflit interne nga am te conflit interne boobu mën na nekk ni yow sa jëm bopp yaa koy dund mën na nekk sa jëkkër si jëm boppam moo koy dund comme ça ngeen ramené ko ci biir couple bi mu indi nag problème ndax tey soo jaxasee le toi le moi le nous maanaam sa jëkkër nangu woo ko jox espace am yow nangu woo jël sa espace nangu woo am vie boo xam ni individuelle la tout le temps couple bi couple bi couple et toi yow yow da nga war jàng jigéen nga bu sa diine taxawul cultiver sa diine bu sa togg taxawul dama jàng togg bu bu dee sa éducation ay doom amoo ci benn clé bi xamagoo nu ñu yaree doom amagoo ay doom wala yaa ngi soo commencé ju doom mais formé pour pour say doom defal bokk d' activités yoo xam ne ça va te permettre di dem ci ay from conférence yaa ngi fi gratuitement y a des choses activités yoo xam ne que ça soit muy mensuel wala ay séminaire yu lay permettre di nourrir sa cerveau sa intelligence sa xol am aussi ay ay amis yu yu lay accompagner ay xarandu uniquement pour kër gi doom yi jëkkër bi da ngay dem nag ba tollu foo xam da ngay mbëkk miir bi parce que tu as mal te sa malheur kenn teg la ko yaa teg sa bopp après nag non sama jëkkër moo nangul ma def lii moo nangu ma def laa mais est-ce que tu l'as imposé est-ce que tu as essayé est-ce que def nga ba naan sama jëkkër moo bëgg lii moo bëgg lee c'est ça le problème donc jigéen ñi nañu jàngi dem épanouissement quand tu n'es pas épanoui individuellement sa couple du baax sa sa sa relationnel du baax sa professionnel du baax sa dara du baax parce que à l'intérieur de toi c'est pourri gâté loolu tax jigéen ñu ba dañuy dem ba soxor aigri nekk ak sa jëkkër mel ni sa noon nga nekkal mënatoo ko defal dara lu baax bañ nga ko te yow la majeure partie li ñu koy bañee sa loxo génn si yow. parce que yow yi sa comportement mooy dem ba def sa jëkkër jël ay distance am commencé di doxaan dugg ci di n'importe quoi parce que nekkul ak jabar ci kër ga ki mu nekkal c'est comme benn morceau boo xam ne dañ ko transformé amatul bonheur amatul joie de vivre ba mu la doxaane woon ba tax ko ba tax la mënatu ko gis ci sa kanam tout le temps tu tout le temps yaa ngi am naqar tout le temps yaa ngi jooytu yaa ngi jàmbat ci dangay ngay lamenté lamenté lamenté et arrivé à un certain moment tamit euh, dafay metti ça devient pesant pour l'homme je ne défends pas les hommes <laughs> ndax ñoom tamit ñu ngi ak seen i bagages mais tey dama indi bi juste pour jigéen ñi am éveil de conscience talaat seen bopp ndax jigéen ñu bëri dañuy dem ba ci damay divorcer je n'en peux plus góor bi lii sama jëkkër lii sama jëkkër laa